Euh, boo seetloo ca ginnaaw woote woon na wone tàmbali bi yëglu ga tey nag jëmmi liggéey bi ci boppam moo taxaw ngir war cee daal di jublu ndax yëglu na waxtu yu ñëw na loolu mooy mooy mooy mooy jataay bi tey kon nag Baye ju junj na ko léegi kañ ji wax na ko mm-hmm. dañ koy sololaat mbubb mm-hmm. kon mbubba ngi fi woon mm-hmm. jëmm jaa ngi ci woon kon loola mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi taxawee Baye Samb junj na ko daanaka jàkka ji dafa am taarix taarix bi junj nga ko moo di euh, sëriñ bi sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Mohamad Hawa Ballam bii nga jox liggéey bi mu ànd koog ñiy liggéey ku xool cosaan da nga xam ne mbir mi euh, teg nga ko fu dëggu fu wér fa war a tegu ndax euh, jumaa ji ñu bëgg a sololaat mbubb ba ko way juram di tàmbali yéen a juré jëm ci amoon teg ci kàddoom yu rëy yooyee te yàlla dogal dimbale ko ci pastéefam ba fam ci àggoon sax ne su ma ko amul jaral na ma lii loole sax jotu ca àgg loole ba mu ko defee mu ànd ko ak njabootug borom Daaru Muxti gépp loolu day wut sëñ bis tey yii suñu borom may na la ko nga ànd ko njabootu borom daaru Muxti gépp ndaje yañ ci doon def ci jamono yooyu ci yaari daaru manaan ci kër sëñ Cheikh Awa Balla fàttewuma ko yow mi fàttewoo xëy na ñu ci bari am na ñu ko fekkewul da ko sëñ Mamadou Awa Balla di liggéey daje nañ ci kër sëñ Cheikh Awa Balla ci njiital sëñ Cheikh Awa Balla ci daaru manaan Kajoor daje nañ ci kër sëñ Cheikh Awa Balla ci daaru manaan ka ca Touba booba yéen ñi ay rakkam yëpp ngeen teewe ko mboolem dërëm bu ci duggoon ci jataay yooyu mi ngi ak man ca karna bi ma denc kon lii nga def mhm. euh, yàlla la ko baaxee yàlla mi la ko baaxee nag yàlla na la ko téyal aggaleel la ko ci ni nga xam ne na nga ko bëggee te nu ànd koog yow waa Daaru Muti gépp mhm. mboolem ñi nga xam ne ñooy doomi deret ci borom Daaru Muti mhm. ñi nga xam ne ñooy doomi pas-pas ñëpp liggéey baa ngi nii képp koo xam ne war nga am koo war a soññ soññ ko képp koo xam ne kii am nga loo war a def def ko bul ne nag sëriñ bi génn na keroog ñeent fukki million bul ne sëriñ bi keroog Nassirou Samb jox na 200 millions bul wax loolu liggéey boo xam ne dangay ngay tàmbali waaye famille am yi euh, kenn xamu ko lu waaye am def ci rek. di ko te ko te di ko te di ko yéenee. liggéeyale sëriñ bi waaw di ko yéenee liggéeyale sëriñ bi loolu mooy li am solo. ndax liggéeyal sëñ bi loo xam ne bis boo ko bis boo bis boo bis boo laloo sa sa loxo ndeyjoor. Mhm. da nga xam ne liggéeyaloon nga waaju baax. Mhm. ko kenn du ko def di ko di ko di ko di di def lu nekk def ko ngir pas-pas ak gëm-gëm ci ne loo ci def sëriñ bi dana la ko delloo. sëriñ bi nag fa sunu borom di fayee rek foofu lay def loo def ci lu baax sunu borom dina la ko fay te foofu la sëriñ bi eh, ñaane foofu la sëriñ bi eh, ñoddi nit ñi ñu jëm fa te mooy def lu baax gëm lu baax te di ko def te dëggu ko te ànd kook ñi nga xam ne ñoom nga ko war a àndal ca njëlbeen ga ba projet bi jóge ak na mu ca tàmbalee fësal muy 200 millions yi mu ci jaayante la mu ca teg mooy képp koo nga xamante ni sëriñ bi jëlal na liggéey bi tegoon ko ci loxoom beneen entrepreneur bu mën a doon noonu lay laxasaayoo topp ci sa ginnaaw ànd ak yow ba keroog sëriñ bi am ci li bëgg mm-hmm. kon nag bu sëriñ bi walbatikoo yëkkatiwaat liggéey bi lépp tegaat ko ci loxoom it day gën a fedd li laxasaayam rek gën a dolli pëstéefam ngir sëriñ bi li mu bëgg mu am ko ndax sëriñ bi liggéey bi mu jël teg ko ci loxol Mouhamed Nassirou Samb ku ko gëstu tuuti rek ñu mel ni Baye Cheikh Awa Balla Gueye ñi nekk ci jataay bi danañ ko mën a gën a firim fàcce mm-hmm. waaye daal bisub tay bii moom bisub jaayante la mm-hmm. ak bisub laxasaayu mm-hmm. Mouhamed Nasiru ak mbooleem ñi mu ko àndal ci Africa Bloom gépp ak mbooleem jullit yëpp ak taalibe yëpp rek ndax maam yee ba nuy gàddaay di fekk si borom daaru fii euh, lii rek leen taxoon a jóg du leneen waaw lii rek liggéey rek liggéeyal sëriñ bi rek te mën naa am góorgóorlu gañ góorlu woon ca liggéey ba moo waral jataay bii kon nag noonu danoo fës yéenee gën a laxasaayu fës yéenee gën a góorlu ba fa maam ya tegoon seen tànk rek bu ñu ko mënutit luñ ci man luñ lépp ñu jéem ko ba keroog sëriñ bi am li mu bëgg ndax xam nañ ni am ngërëmal borom daaru mooy am ngërëmal sëñ Touba.